ginnaaw bi ñu leen dalalee ñu indi ñu indi fi nuyoo yu tegginu yu am yu am solo yooyu jóge ci njiiti réew mi muy président Macky Sall ñoom ñi nga xam ne ay jegeñaale ay jegeñaaleem lañu ñu nañu fi waxtaan ak euh, ñun yàlla mi dara teewul nag mu sëriñ amoon gànt mu wax naa naa daj ñoom waxtaan ak ñoom déglu leen li leen déglu tamit li ñu fi wax lu lu lu lu yanu maanaa la parce que lu ñu xamoon la mais xaj na dañ ko gën a biral mu gën a dalal suñu xel ci ne. sunu njiitum réew muy président Macky Sall fi mu teg tànkam ne lii nga xam ne mooy homosexualité fasul yéene légaliser ko fi wala mu permettre ñu ñëw fii di fi def seen i seen jotaay ak seen ak seen ak seen i xew moom loolu bu kante ne am na te mu koy biiral ba mu jaral ko mu jël ay ndawam yónni leen ci kër diine yi pour ñu gën a feddali loolu defe naa ne loolu lu am solo la te baax na ci communication tamit parce que baax na pour que nit ñi fu ñu toll rek xam lan mooy position état si yenn sujets yi nga xam ne par exemple yëkkati nañ ko wala leneen loolu moom lu am solo la te waxtaan ci waxtaan bu yaatu gën nañ fi gën <coughs> nañ fi aussi ay ay ay tegtal yoo xam ne tegtal yu lu leer la wax yu tegginu jëmee ko ci sëriñ bi jëmee ko ci njaboot gi yëpp pour que mu nekk loo xam ne daal far ñu xar suñu tànk tubéy ba ñu gën a mën a taxawu suñu njaboot yi ba loolu tamit ñoom ñu am ci ngàndaay moo xam ne dinañ ko mën a xeexal seen bopp parce que jikko ji nga xam ne moom la nit ki war a am ba lu ñëw ci moom nar ko yàq loolu yar ak teggin boobu si ci si njaboot lay commencé ci kër gi lay commencé ci wéjur lay commencé waaw loolu jot ci waxtaan waxtaan yu yaatu waxtaan yu yu yu takku. mel na ni ni ma ko waxee sànq ci nasaraan këru diina yi bëri selon waa sàmm jikko nee na ñoom ànd nañ ci xeex gi ñuy xeex maanaam wàllu euh, ngóor jigéen bi tey lan moo ci taxawaayu xalif bi ñu ko fiy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér euh, loo ñu ci mën a position reposition maanaam tey ji ni communauté Layène bi par rapport à la question. waaw loolu lu yomb la parce que am góoma ni am na nit koo xam ne nekk na Sénégal ànd ci ñu siiwal wala ñu taxawal góor jigéen loolu moom ñu ñëpp ñoo ci bokk ni ñoo ci bokk ànd ak góor jigéen suñu borom moo ko tere su dee ay jidul lañu dañ ci war ànd tere ko ba hmm. tax te loolu aussi sunu sunu sunu sunu sunu sunu cëslaay bi nga xam ne ginnaaw diine sax mooy sunu cëslaay bi ñu amee ñu nekkee si sunu sunu dëkk yi moom lañ dëkk yi muy sunu yar sunu teggin ak sunu sunu sunu sunu aada dugal ko ci bokkul ci parce que su si bokkoon ñu fekk fi ñu koy def ci mais bokku ci nekku ci mais nag mbirum góor jigéen dafa nekk loo xam ne bay adam ba bay ba àdduna soso ba léegi mu ngi fi mais dañ koy xeex mën na ko xeex mais xeex bi ci gën a wóor mooy xeexu yar ak jikko ak jubanti bon bi nga xamee ni tamit loolu ab phénomène bu am na bon am na am na yoo xam ne ñu ngi koy doxal xaj na ni koy waxee ak ni ñu koy defee dëppoowul ak ak ak ak gis-gisu ñenn ñi man de dëppoowul ak sama gis-gis parce que am naa yaakaar ni su fekkente ne dañuy doxal dañuy bëgg xeex affaire ngóor jigéen mën nañ ko xeex am boo nee xeex ngóor jigéen ñëpp ci ànd mais ni nga koy ni nga koy xeexee ak ni nga koy defee dafa war nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ci manque manque àndoo ñu waxtaan ci xool ndax lii ni ñu koy xeexee am lu ko gën wala am lu ko gën a teggin amul lu ko gën a ànd ànd waa parce que àdduna moom bu ñu njabootee rek dañu fexe ba li ñuy def rek ñu def ko ci yar ak teggin ci sutura et puis suturaalante mais mën nga gis nit sax mu nekk ka mais suturaal ka wax ka yedd ka ba mu jóge ca moo gën a rafet sax moo gën a jaadu sax xaj na di ko dóor wala di ko di ko siiwal parce que siiwal bi tamit euh, am na yeddaanga boo xam ne si biir jullit sunu borom dimbal nañu ne bu ñu fexee ba ñu nañu nëbbalante ay ayib bu ñu wili pandante lu fanaa loolu bokk na ci jikko yi nga xam ne aussi ci sàmm jikko la bokk waaw sàmm jikko la bokk dafa nekk loo xam ne daal dafa dafa xaw a délicat xam ne daal loo ciy wax ak loo ci def rek na nga sàmm ni rek ki sa ginnaaw na nga ko ko ci calculer waale waaw. non recommandation bi kat xam nga moom dafa xaw a jafe pour nga toog nga ne da ngay jox leçon yi ñi mais li ëpp solo ci àdduna rek mooy ñu diisoo di waxtaan. bu ñu diisoo waxtaan rek parce que ñun ñëpp alkamaalu lillahi yàlla rek moo mat ñun ñëpp ay dañu di donc loo yëkkati rek matul donc soo bëggee mu gën a yem mu gën a baax gën a taxaw waxtaan ci ak sa ak dëkkandoo waxtaan ci ak sa xarit waxtaan ci ak sa àndandoo te bu ñu nekk ci état aussi ci sama gis-gis bopp am naa yaakaar ni waxtaan ak état moo gën a rafet moo gën a rafet ci yenn ci yenn fànn yi waxuma affaire politique man affaire société laay wax. yenn fànn yi mooy waxtaane ko ak ak état toog ak moom indi ko sa xalaat li nga ci gis mu wax la lim ci gis mu wax la ci gis nga wax indi si lu gën a rafet wala lu gën a kii defe naa dafay gën a dafay gën a baax rek man sama gis boog du na la gisee parce que dama yaakaar ni rek kenn matul ku nekk mën na mottali mais ci njëkk ak teraanga ak suturaalante moo gën parce que xaw yenn sutura yi amul njëriñ daal ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ñu ngi tey fii ci Cambérène dañu nga xam ne moom la ñu seet see siyaare ko tey waxtaan ak moom di ko lu baax nag ci bis bi ñu génn ci appel bi di wax na lépp lu fi ñaan yal na ko suñu borom nangu comme lu yóbboon Tuubaa rek moo indi fi tey ndax dama jàpp ne sàmm jikko moom ñëpp la war waaye jikko boo sàmm day fekk ne mi koy sàmm nga xool xool sa jikko ba pare ndax ñu war ñu sàmm jikko yi di xeex affaire góor jigéen góor ñëpp moom la ñuy xeex. commencé ko ci le président Macky Sall ba ci kilifa yëpp ñuy taxaw ñëpp góor jigéen la ñuy xeex ndax dëppaloo suñu diine dëppaloo suñu aada te président Macky Sall mi ngi bopp réew mi loolu du fi am wax na ko ci kanam président yëpp wax ko ci kon jàpp naa ne boobu débat lenn lenn la ci ginnaawam lu loolu li muy wax ne nag lu ci ginnaawam mooy ay nit ñuy politique di mbubboo góor ak góor jigéen di mbubboo loolu ngir bëgg utiliser nit ñi ngir bëgg dem ensemble def seen liste pour ñu wootee ñu joxe assemblée ñun nag ku ne am nga am nga def politique waaye nag bul tuum bul yàq parce que affaire góor jigéen suñu wër naan député yi ñoo lànk ba ñu ko woote wala assemblée te ñu gis moom nga ñu jàpp jàpp naa ne am na fu état bi toll ci xeex kon sëñ bi tëgg yàlla mu bool ñor li ñu indi mooy ñoo xam ñu làqatu ci lii ndax jàpp naa ne ku dégg bëgg yoon seen woote bi ñu defoon wax na kat dañu bëgg def seen pour dëpp dem assemblée kon jàpp naa ne sàmm jikko yi am leen lu ci raxat bokk ci loolu te am na ñu nekk ci mbir ñoo xam ne ñu dàq wax lu ñaaw kilifa diine yi ndax ku xam ne Omar Diagne di nga ko bëgg dee mu toog télé bii lu mu waxul jooju mënatu ko fàtte lu mu wax si mu tax da ko fàtte boobu jukko boobu jukko ndax baax na boobu jukko ndax kenn bëgg na ko am jukko boo xam ne toog di xas di xas kilifa diine yi te ñoom am na leen ëpp suñ kilifa yi ñëw tey Sénégal ñoo ŋànk problème bu am ñu ñoo jóg soo ay nit jógee nag leen wax lu ñaaw ci télé bi di ko adressé yoon murid di ko adressé ñeneen jàpp naa ne sama jukki yi loolu war a xeex pare ma affaire ko moom li ci Macky Sall wax leer na du fi am tànk mi ci réew mi jàpp naa ne leen moom ay ñii loo xam daal yuy làqu politique lañ ñu demoon wax si mu taxaa nag tey ñu la ñëwee fii ci Cambérène waxtaan ak sëñ bi leeral ko ko. fi ngeen di yem. non non incha allah bu soobee yàlla fépp kilifa ji nekk rek xalifa dina si waxtaan yow indi ay gind ci ñi xam ne dañuy jóg di wër di yàq deru président Macky Sall ak yàq deru réew mi loo xam ne dara amu ci loolu rek moo tax ñu koy kon ñu ngi sant sëñ bu baax di gërëm jërëjëf